mi nga xam ne ñooy noot dëkk sàkk nañu ne ñooy mbooloo ci dugg ci ba ñoom julli ci ëpp di ko sunnaal ñu noot dugg nag am na moom sept heures moom ak fajar nga ak jine daan noot nekk bu njëkk ak noot bi nga xam ne li nga xam ne ne dañuy julli mooy di imaam toll ci kaw mun bar nga xam ne noot bi yooyu bu pare xëdd day ci jëm dana leen wax julli ci diggante boobu wala waxtu wala sax tere koy wax julli wala julli muy tere na ko mu ne moom moom lu kan min li nga ñaaral la par ñaar allahu akbar allahu akbar boo wax lañ koy ñaareel wala salaat wala salaat xaru na ñoom même salaat xaru na ñoom dañ ko wax ñaareel mu rajo am lu ñu dellu la boo gisee الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا اشهد ان رسول الله اشهد ان رسول الله nga yëkkatiwaat sa xam ci dellu ci sa gën a kawe ci sa baat ci seede yooyu xam ne jullit bi war ko wax ba ñu dégg ko ndax ñu ngi ko jaay ñu koy ñi nga xam ne ñu ko déggee dañu war a nekk dañu war a wax wax li nga wax ndax di jaay ci noonu bi lu am solo la ci seen ci kon waxaat kii nag li mu wax moo tax ñu bëgg nga wax dañu dégg ko ni ñu ko defee sax nañ ko dégg bu ñu koy wax dañu dégg dañu ko xibaar mu ni mu la jaxut ci xaar ko ñun ñu ñu dellu ci ñaari seede lañ nga dellu rek di arfa ay ñu gën a koy liñ ko ko baaxul aw wala ci jëf ñu nga tàmbalee wan noonu boo dee delluwaat ci takbiir bi ñaari baat yi nga gën a yëkkati sa baat loolu te terewul ne bu njëkk da nga doon def taxaafut mu xaafatal bu wax naan ñenn ñi nga xam ne kenn du ko dégg mëj bi lim ni li nga defal la moom mëj moom moom noonu allahu akbar loolu barul allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لأكبر الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم koy jëfam jigéen bi jëfam la ba toog ci liñu ñaaral lay tam baax ci nekk dégg nga bi laa fas li ci li dul fasale doon noot ba mu yàgg nga daal di wax ak kii wala ngay def liggéey bi soit tàmbalee fa nga demoon ci noonu la ci doon dugg donte jublu la woon tamit bu dul loo xam ne mën nga ñàkk te dara wala bu utaay suñu wax dina ko donte nuyoo la li ko xalaat nga def ci nuyoo nit ki da ngay noot rek nit ki ne asalaamaaleykum nga ne ko nii wala nga ne ko nii wala nga ne ko nii wala nga ne nii yëpp isaara la boo dee noonu rek loo ko def fasale la donte jublu la tamit nanguwuñ ko boo banaa waaye bu ko defee itam moo banaa jokk na ko tax mu tàmbaliwaat dafa noot ba ci digg am mu ne asalaamaaleykum waaleykum salaam def na lu ñaaw waaye tax mu sofaat na dëgg la ko ci digg ñu ne ko faaw ma yaa in lam yàggul lam yàggul fekkee la fa def ci jàmmante yëpp lu mat ay salwan lu xaw a dab ko tàmbaliwaat day mën xayru muqaddamin bi ñu ngi jiital moom nodd alal wax ci waxtu bi amul julli bi ñu ko noddal ba fekk waxtu bi jotagul dana la wax ne suba dana la wax ne suba suba illa subha ndare suba julli suba moom mu ne fa mën nañ koo noddi di tuddi ci léegi di tuddi ci juróom benneelu xaaj guddi bi al axir bi ajuma julli guddi bi li ko séddale woon juróom benn xaaj juróomi xaaj yi wéy na ba mu def benn soo fekkee ne waxtu boo xam ne fukki waxtoo ñaar jamono joo xam ne fukki waxtoo ñaar la guddi bi doon kon bu ñaari waxtu nga koy guddi bi nga xam ne ñaari waxtu koy guddi rek mën ngaa doon guddi kon ci xaj wa ab yërëm moom noot bi islaam yi day ànd ak islaam ñu ci di di yéefar duñ loo koo fay muy noot doo defal ñaax baat ak lu mu mën a nekk loolu da nga ne moom la waa réew mi xam nga xam nañu baatam bu noddee nit ñi daal dañ war a daal ko yëngu wala dafa mën a wax ca kaw dañ koy dégg lu mu ci mën a doon rek noddam ci wér dañ sunna si dina dàq kooku wa aqlin ak xel dox bu ma nee noonu kenn du ko noonu bu nootee du doy c'est ça yow di góor gi ak góor góor day nekk góor waaye jigéen du noonu ñun ñu xam doon noonu ba buloo ko ak jën na sigaar maanaam na na doon bu fekkente ne xalel la bu nootee noonte bi di ko limaane ñu ne kenn noonu wala di ko soppee soppee ñu koy fës jëriñ aji laaf si noot na ànd ak jàpp am na bu noppee rek mën naa dagg kàbbar ndax mu ngi wax am laa ko xadal fay ñu ko di aji baatu kan na ñu ci mën a wax ca kaw waaye boo xam ne baatam ñu ko dégg bu baax man la dañ koy ñor di gën a def ci muur sa fa am wulaay ñu ko ci daan na ko ñu ci sooroon bi wala ay ustane yi ñu ñu ñu ci ustane yi sooroon bi ba teg ñaari ñaari ustane wala ñu wala yooyu taxaw ci ah il mu di aji taxaw ñu ah fii noonu moom taxaw rek nga mën a def ah daal di aw nga rëy di gën tànn fekkee nag waa ji ñun la taxaw de tànkam day nekk wala dara daan na kaw mu yéeg ba ca kaw ba ca yooyu ba ca kaw mu kaw bu tax lu muy ak jublu fi lay doon bu noonu day jublu kenn ñu ne ko ah xaw rek ah daal di Ismaïl nga rëy di déggle dafa bëgg waa ci dégg baax waa ci dégg baax waa ci dégg baax waa ci dégg baax ñoom ko fii dañu ko ñoom de ñoom ko fii ba nga xam ne ñëpp daañu ko dégg kooku dana lañu ko ñàkk jubloo ko kontaatlee leen yooyu waaw waaw moom maam yi am na ñu ko ñu kontaatlee ko bay ba mu tax la du wëlbati ko dama ne ci mu jàng rek màgg di jàng wax wa faqru ma ci saayatu ko nekk leen di saa ñu ngeen aji jéggal ki nga xam ne ñu ngi jëm ci màgg muy wax li muy wax lu dul ci xaar ci xaar ci ba ca ci gis ñaari seede وسلم بالمؤمنين اشهد ان لا كانه اخبر ربك اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله من الله حي على الصلاه من الضمير حي على الفلاح لم يصف لم يكن عن وكن عن بكر جمعيين من وجان من عن وكن من يتحمس من حي على الصلاه اللهم آتنا في تقواها وزكها خير من زكاها أنت مولاها اللهم إنا بارا ورزق دارا وعيش حارا اللهم كل من يعطيه والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم كل من يعطيه والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة صلاة صلاة صلاة xam nga salaat yi saa bi xëy lañ koy wax da ngay da ngay mujj di ko taa parce que taa xaraf la comme tëf xadi taa jooju loolu di ko taal waaye xale yooyu nga xam ne day koy am nga ba noppi am taal nga xam ne arab dana ko waxee noonu suy taxaw wala suy def tëddu di wax yooyu waaye su dee taxaw wax su dee wax moom di tudd saa bi yooyu. ndax taanis dana ko def maanaam faariqa maanaam faariqa muy rajulu kon maanaam mu mu mu mu dakle kon mu ànd kon foofu foofu dana bàyyi ko arab bi def mel na ci ñu ak léegi nga xam ne mu dakk bi ñu léegi bu rek wala alxaj bi xam ne mu dakk bu ñu alxaj bi mu ne mu ànd jigéen fi nga xam ne góor du ko def mu ñu jigéen ñooñu di indi taaw taaw taaw taalis boobu يقول الحامل ولا المرأة الحامل ولا الحائض إلى آخره يقول يقول فعولة يدك على وجه فعولة أن يفعل أن يفعل أن يبقى مخبر صلاة المؤمن تعبدها لا xam nga am na yoo xam ne ci julli bi dana nax ñu naan Allah dañu ko jël ay julli ci laa bi dañ ko xam ndax maanaam def ixtiraam jigéen ñi ko jigéen ñi alquran moo leen alquran xoo xëy si yéen ñu ngi ko fekk rek kenn du ci dugal xalaat wala xiyaat wala ñëw pare xoo xëy si la dañ ko fekk dañ ko bàyyi ñu ko jëkkale bi saxaaba yi laa alif boobu lañ koy dañ koy bàyyi duñ ko bisaat daañu ko waaye loolu ma am daal li jëdale la waaye dama ne rek jël ak ay suba di ñëw fekkee nag kuy way la di ko tënk noonu dana indi ay coow wala ngay sikkar di wàññi xoof yi seeni lim nga indi ay coow mu ni wala wut na si lan doote aji naati lawu lawu moom mi nga xam ne moo dégg ci nodd ñu di ko wax ci kaay yi waaw dégg nga beneen mu nekk ci biir naaj bi di taxaw di jàng alxuraan kooku ñu naan dëkk bi dégg naa ak ko mu ay bu waxee rek mu ko laa mu tari bon waaye du tegu aji farata ci julli waxtu julli juróom ci baax ak sama ci ko la jéem ci xikaaya ni wa adaanu fajjin ba tey dara na maanaam adaanu fajjin noddu aji yéeg seen dam une faaf la nga ko ci xam nga kon seen nit koo xam ne ñu ngi liggéey ak ñeneen ñoom moom dafa war a jubbi bu fekkee ne dafa war a jubbi ba jóg mën na noonu wala mu nekk ci waaye laa jamaa ci liggéey bi nag mbooloo moom mbooloo moom bu fekkente ne maanaam lam tap tapwul xayraha beneen mbooloo mbooloo moo xam ne xam ne ñu ñi rek lañuy toll noonu ci àll bi bu voyage nekk ci digg gott boo xam ne am na nit ñëw bi léegi pour mu nodd du sunna du sunna dafa dagal rek du tax mën na waaw léegi léegi léegi xaw ma sa sëñ bi waaw sa sa sëñ léegi léegi incha allah loolu itam li ñu jàpp ne léegi maanaam bu fekkee ne léegi yaakaar na ne bu la ko gis ñu daan yaakaar ne bu noddee daal ñu dem daal ñeen ñoo xam ne daa ñëw bu dee loolu xëy na waaw yàlla far toog fi mu ne la. waaw waaye bu bu bu fi mu ne laaj. waaye nag jamaa xam nga jamaa bi ma xool. fi mu ne état bi jamaa bi xam nga ban nga ay xaar wala ay am xale ba mooy suñu kii ki nga xam ne nag moom dafay jànn wala muy mbooloo moo xam ne sàpp yu mel wala ne bu jugee sàpp ñu ne day daal di suñu bu ñu ne sax moom mbooloo ñu dem seen kii bu ñu sax ko ñëwee nag du doon ñëw leen seen kii. laaj la wax ko suñu xeer day jël ko fii. waaw ah ngoog waaw. gën na alal mu xeer seen ñu tànn. wa jaasa dagan na ba tey ama aji dungoor ak suñ ma xam ñu nodd wa taadduhu wa dagan na ba tey taadduhu ak ni moom muy mbooloo mu bari ñu nodd ñu teel na war a war a ak kër yi ko xeloo kii naa ba pare kii daal di màgg ñu ne ko ci waxtu wu ne mu ne ah daal ma rek dafa rek nit ci nit dafa gaaw a kenn mbooloo du ñu nodd wala ñaar ñu nodd ba pare ci kii di ko jëm ñu ànd ñu nodd dëgg ñoom ñu ñu def dañu ko ndox yow waaye kenn du ci dëgg moo am ci ñaari fan ndox la wajam um mooy wajam um ak suñu daje suñu mbooloo ñu ko defee nag ci lu kenn ku nekk ci ñoom xalaat yàlla ñu ne ci noddam rek kenn du ko faale ko morom yaa ngi jël ci seen noddam ba ba tey dana sunnaal daañu ko sunnaal iqaamatu xayri man wala dagal na la wala dagal na ba tey iqaamatu xayri man liqaamu koo xam ne du mu mën ak dënnu du mu ci noonu danañ mën ko ci liqaam bu la ci noonu dagal na dégg nga xitaayatuhu ak noddam ak xitaayam maanaam nekk ñu noddam xam la ñu jëlee ko ci nodd bi nit ki ñu nodd nga raw ko xitaaya wala nga jiit ko def ko ko déggoo nodd xitaaya ba tey jiitoo ko xitaaya waa dagal na ba tey ujuratu yool alim ci nodd ci day nodd ñu ko fay dagal na aw ma asalaati wala ànd ak julli bi day nodd nekk jiite ñu ko fay waaye bu kuree ko ci biir fas na day alee xaaj ci biir waaye daal day jiite ñu ko fay fekkee ne ànd naa nodd bi ñu ñu nodd ba noppi jiite julli bi ñu ko fay dagal na wala muy nodd rek te duñ jiite jiw ñu di ko fay dagal waaye bu fekkee day jiite rek ñu di ko fay ñun waaw moom ci biir boor boo ba tey ci biir islam nuyu alee ci moom moom mi nga xam ne day noonu fan nañ sànq ne bu ñu bu ñu nuyoo bu ñu ko nuyoo bu mu fay bu mu tax julli waaye bu ko defee def na lu mu tere waaye day jox léegi nag nit ki bu koy nuyu moom parce que dañu naan dañu leen di gënee kooku moom ci biir ñu li ñu def. xamul nag bi ñu am na aju labbay ko bu armat ko labbay ko allahumma labbay nga di ko nuyu wa iqaamatu raatibi ak iqaamu bu war waa jërëjëf nag soo bëree nii iqaam maanaam ci la di wàcc ñu mën a def rek ñu xool ci gannaaw ndax xam nga maa ngi ñu ne xaw moo ay wala aji baamtu ñu ci ak ñoom ci démb loolu ba noppi gis mbooloo mi nag ñu ne ngëneelal mbooloo gannaaw topp nañu baamuwaat ngir am ngëneelal ngëneelal mbooloo mu ñëw dañ ko bëgg a defal xam nga ñu yoon ba pare day baamtu di bëgg a defal bu tu fan def na ci naal iqaamatu iqaam ci julli bu fan mu faradatuñ lu ñu lennal la moom wala lu xaar Allah Allah bara ci wax ñaare ci ko ko na ay waaye moom nag ci wuutam ak nodd bi wata sa wata ci wata ñeen ñaar ñaar la sax la tax di wax Allah Allah ko ñaare ko wax li far bi ngi farata mo ko xam way qaba an doon def say rawal da nga jibbi wul woon ci def da jël ci jàng nga di ko fay ngay laqaat wa saxat wérat na wala pour moom julli wala pour kat doon te bàyyi xool bàyyi xool na liqaam itam am dañ ci tëj ñu ne ñaari arab yi dañuy gis kenn kër waaye man dama julli kay fàtte liqaam su ne man dama nga ko bañ a liqaam ñu ko foofu gën a tuur boo ko tee rek bàyyi liqaam yi dana ñëw dégg nga waaye aqaamat ndem liqaam na almar ak jigéen bi te fa mu ndam kenn bañ ko tudd sax dana ko jël wal yàqum ne jóg moom ak julli bi ma aha ànd ak liqaam bi aw ba'daha wala bañ liqaam bi da ngaa dugg ka ñu ñu jóg mel yaa ngi dajale sa téere waaye yaa ngi jot bu ko teel ba ñu liqaam bu ñu liqaam fii tàmbale liqaam nga war a duguloo nga nekk dañu liqaam ba julli bi nga jóg wala nga bàyyi dañu liqaam ba àggale nga ci nga jóg nga xam ne kàmbar bi nga ci nga jóg mooy wala yàqu ñu jot maaha ànd ak liqaam bi aw baadaa wala gannaaw liqaam bi di xadri saax ci seen kàttanam rek su fekkee ne yaa ngi ci loo xam ne xaree yoo xanaa ci